tiimal seen bopp lii ñu leen di wan ngeen xam ne lii bu na leen ci jiw la jógee yéen ñëpp ngeen rus mënu sax jox fas wala xaru tabaski pour mu lekk ko ndax am na tookee nee na la sànq bi mu dugalee loxo yi ci jiwu bi dafa am ay gunóor yu génn kon xam ngeen ne loolu du jiw wu baax Aar Sunu Moomeel dafa mérité woon autorités yi woo leen jox leen moyen de placement encouragé leen boole leen ak ay gendarme kii police pour fu ñu dem ñu escorter leen ñu xool la xew jox ko kilifa yi parce que ñun woowuñu rek journaliste di wax. parce que ñun ñu ay autorités yuy dogal mais nag am nañu sañ-sañu ne milliards yi jógee ci état ñu koy tudd bés bu ci nga dégg ni ko El ji waxee nii mu yegg si si ñun te loolu la ñuy xeex.